ba tey gannaaw bu ñu ci half dañoo dellu si waat ak ci arène nationale ECOWAS championship bi nga xam ne nii Sénégal ñoo ko nekk di host day di on the 6 of euh, ci final li nga xam ne nii mooy kilos bi waaye diggante nga xam ne nii moo ne bi moo ko amee. Diganti Sénégal ak Gambia diggante Sénégal ak Gambia la Gambia bi mo ñu won gannaaw arobas arobas arobas ñaari bor yaay suuf oho Jogat nañ ci kaw diggante Gambia la ak Sénégal ak Sénégal ñu ngi lay fay ñu ngi lay fay ndeysaan diggante ci bir géew bi bëre len yéen ñaar eh ay wa yalla buur bi suñu waram tay sigil ñu nga meñu ci li nga xamna ni ne 100 kilos bi ñu mëna am lu ñu dem doro digante arobas la muy gambien bi ak senegalais bi ci 100 kilos digante gambia la ak senegal ñam ñaa ñëpp kenn ku nekk jaar fenn nak est ce ñom ñoom sa jaar ci mbabot digante senegal la Gambia la wa pencum la mi Gambia nuy na len di len di ziar bu baaxa baaxa baax ñu ngi fi nga xamone ga ci arène nationale ah, bu senegal ci wa champions bi nga xamne senegal ko host mu nekkon ten countries ño xamne ño fi dajewon waye ñu ngi ci 100 kilos bi xamante ni kilos fii ci jamono nii oh oh 100 kilos bi ci lañ nekk nii ñu ji kilos fii ci jamono nii.